lii opportunité penalty la sax député yi moom xam naa <laughs> nguur gi du leen raté ñii moom bu ñëwee dañ leen moom ci ci ñi njëkk ñii moom dañ leen di rendi moom bu dee ñoom ñoo ko def moom <laughs> non lu leer non non je veux dire que je veux dire que ñii ñu am na député yu bokk si ñun bi ñu defee lii mais comme xamaguñu dara par contre grand bi lu mu wax franchement polygamie moom ah xanaa yow monogame nga. <laughs> vraiment <laughs> non du moom monogame. non non non defal naa. <laughs> monogame la bi benn la am na. monogame la benn la am jullit nga. da nga koo signé ah. ah non signé ko ma polygame. mais waaw dafa dëgg quoi. non non non non question bi ma ko posé non nee naa ko ndax monogame nga mu ne ma waaw. ragal sa jabar jabar la jullit nga. jullit la waaw waaw dégg nga. ragal sa jabar non non wuy ma non non du ragal jabar c'est-à-dire. dama ne bi ñu jaar non grand man maa la bi ñu jaar la wax mais grand. non dama ne jullit nga. jullit laa benn jabar laa mais kon répondre nga sa bopp. mariage religieux mais non mais non dama nga sa bopp cest à tey jii nii comme jullit nga rek. mën naa am ba ñeent. ah war nga am ba ñeent. maintenant le problème mooy que kenn waxul ni sa ñeenti soxna yëpp surtout bu dee ñeenteel bi bu ñëwee. xam nga ni partage bi problématique moom ngay. fii ak ñeent bi dara ñett a wax que kenn a ah, déglu ma dama ne euh, mhm. passe bi dafa waxoon ne benn député bu ne sa benn jar moo ko am. waaw bi ñu faloo Macky mhm. Sall. en 2012. premier législative boobu Moustapha Diakhaté moo fi nekk. député dañoo dem si moom ni ko. suñ jabar kër yaa ngi tas ndax pass benn passeport. Hélène Tine wax na ko. fii semaine passée effectivement Macky Sall joxe ndigal affaires étrangères ak assemblée nationale ni député bu nekk sa jabar yooyu am na nga ko am. waaw waaw léegi benn Macky moo ko yàq. mais man loolu d'accord naa ci xoolal man loolu d'accord naa dégg nga gis nga ñun aussi. bi loolu amee bi loolu amee ci la affaire bi tàmbali ay ay euro ay franc ay affaire ñun dañoo war a adapté suñuy mbir fii maanaam maanaam dañoo war a adapté moom laa wax man loolu laa gëm mais moo tax ma ne ko nag polygami moom moo koy andi bu yemoon ci jabaru député yi du am benn problème mais yemu ca parce que faayu loi bi dafa am ay non non non mais du fraude lañ loi bi amul du fay. mais am si fay ku jub la non ah, ah, parce que fay xaaral rek xaaral rek. non mais ku jubadi mooy utiliser. waaw mais dañuy déglu waaw mais <laughs> du affaire du hmm. nit ki am na ñeenti jabar. ñu ne ko ñeenti jabar yi ñoo war a tukki bu dee yem nga ci sa ñeenti jabar yooyu te violé woo benn loi kenn du la du la du la woo naan la naan la mbir comme mbir mi demee na fi ñu ngi jugé nit man pour man opportunité la aussi pour que état bi mooy li mu Ndiaye doon wax à partir de maintenant même su fekkee ni jarul yenn dépense yi ñu auditer un peu ñi ñuy jox passeport yi revenir sur des choses yoo xam ne mu wóor na ni dafay sécuriser quand même le passeport qui est même benn voilà loolu moo am solo verrou laa alors Charles pour terminer tour de table bi ci. waaw man gisuma fi lu fi lu fi. lu fi bees lu fi ja ja waaw parce que.